asalaamaaleykum gars yi nuyu naa leen daleen ak jàmm ci seen sport 221 Abdelaziz Mar l'international sénégalais tey jii marqué na biom bu njëkk ak clubam bu yees bi nga xam ne Angers Angers gi nga xam ne France la nekk te nga xam ne ko faa able Brighton ca Angleterre ñoo abal Abdelaziz Mar Angers mu marqué li nga xamante ni mooy biom bu njëkk ak club boobu nga xamante ni dañu doon joué match amical seen digganteeg ñii di waa Saint-Étienne voilà ñi nga xamante ñoo Angers nag ñoo dóor 4 buts à 1 waaye Abdelaziz Mar moo dugal benn bal ki nga xamante ni mooy Sada Thioub sax moom titulaire la woon ci match boobule keneen koo xam ne moom itam marqué na tey jii ci précision yi ba tey mooy ki nga xamante ni nag moom la ñuy wax Demba Seck Demba Seck bi nga xam ne woowoon nañ ko ci match yële Sénégal doon football bu yàggul dara waaye nag moom ñu gis ne mujjuloon am sax li nga xamante ne mooy chance ngir jouer minute yi njëkk ci équipe bi mu nekk xale bu mën a football ca Torino tey ji dafa marqué li nga xamante mooy benn bal ci match boo xamante ne ñoom Torino doon nañ ko jouer seen diggante ak Trabzonspor di benn ñoom Torino ñoo door 3-0 te Demba Seck na ci ni ñuy dugal bal yooyu la ki nga xamante ni nag moom la ñuy wax Mamadou Loum Ndiaye moom nag fi mu ne nii euh, ñu ngi koy séntu foofu la nga xam ne mooy ci Reading Reading gëlay nekk ca Angleterre ñu ngi ko fay séentu ci lundi bi nga xam ne moom la ñu dëkkoon maanaam altina mu nekk joueur boo xamante ne nag ñii di Porto dañu ko abaloon ñii di Deportivo niki daaw mu def fa saison bu rëy waaye nag ren jii jëm ñu ngi jàpp ne ñi nga xamante ñoo di Reading dinañ leen ko abal mu ànd ak option d'achat bu toll ci 5 millions ki nga xamante ne nag mooy entraîneur bu Reading tey jii confirmé na ko ñoom nag ñoom waa Reading tey jii dañuy doon football ñoom itam ci li nga xamante ne mooy pré yi mu ngi xam ne daal ñoom fi mu ne dañoo soxla dégg nga joueur bu mel ni ki nga xamante ne mooy Mamadou Lom Ndiaye voilà nekk na joueur boo xamante ni daal moom gis na ne am na ay qualité bu baax la ku mën a football la te nee na fi nga xamante ni euh, fa la nekk te muy Porto koo xamante ni nekkoo joueur bu ay dëgg doo fa football te it wax na ne euh, joué na ci Camp Nou te Camp Nou muy stade Barcelone foofu boo nekkul joueur bu baax doo fa football moo tax mu ne kii di Lom Ndiaye daal joueur la boo xamante ni kon bu baax la te mu ngi ne dinañu ko am te bu ñu ko amee ne dina nekk loo xam ne dina leen dimbale ndax ñu ni ki jafe-jafe yu rëy la amoon ci saison bi ndax kat bi ñu jeexalee saison bi ci vingt et unième place ko jeexalee mën nañuy wax ne dem nañu ba jub équipe yi nga xam ne dañuy wàcc ci troisième division waaye nag ñoom dañoo mujjee sauvé moo tax ren jii daal dinañu indi ay renfort signé nañu lu toll ci juróom-ñaar ci ay joueurs yu bees ngir dëgëral seen équipe boobu la Loum Ndiaye nag moo war a ñëw nekk xëy na juróom-ñetteelu joueur bi te ñu ngi séentu ne ci lënd bi dina wàcc foofu la ci Angleterre bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi ki nga xamante ni nag moom la ñuy wax Etienne Eto'o nekk doomu Samuel Eto'o moom nag toll ci fukki at ak juróom-ñeent dafa signé li nga xamante ni mooy son premier contrat pro ak ñii di Victoria Guimaraes Victoria Guimaraes nekk foofu la ci Portugal dégg nga foofu la daal di signé moom kii di Etienne Eto'o nekk doomu Samuel Eto'o signé na ñaari ati contrat maanaam lu koy yóbbu ba 2024 bi ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi. équipe nationale Sénégal bu beach soccer mooy ñi nga xam ne dañuy football ci tefes gi tey ji dañu doon football ci léegi maam seen digganteeg ñii di waa Cameroun ci loo xam ne mu ngi ñeel qualification Coupe d'Afrique waaye nag liy jafe-jafe bi mooy ñi de Cameroun kat Sénégal daf leen fekk dóor leen dóor yu métte métte yoo xam ne maanaam mën nañu wax ne moom Cameroun xëy na bu ñu fa bëggoon dogaat fi mu nii du yomb ci ñoom ndax juróom-ñeent bal ci benn la leen Sénégal dëkk ba pare war a ñëw fii ci Ndakaaru xam naa retour ba moom kenn xamul ma naan war a demee ki nga fekk dóor ko juróom-ñeent bal ci benn moom xam naa bu la fekk see moom boo ko yërëmul mbir mi dina doy waar voilà kon juróom-ñeent bal ci benn la ñu dóor Cameroun ci li nga ne moo aju ci wàllum beach soccer la ci wàllum Coupe d'Afrique voilà gars yi loolu fi ci tënkum xibar. continuez leen de suivre de sport ans. the best sport news channel